waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa wala euh, ñu ngi nuyu mbokk yëpp nekk ci groupe bi euh, di jéggalu ci yéexaay bi xëy na dañoo nekk ci tukki loolu lañu gàllankooroon euh, wala takunanna minal mushrikin ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar naam naam alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah waaw cheikh bi kufr suñ ko waxee ci wàllub luxa moom mooy lépp loo xam ni day muur di nëbb lépp luy muur di nëbb rek loolu dañ koy tuddee kufr boo demee ibnul faris ñëpp xam nañ ko ci xarañam ci luxa ci mujmalul luxa wala léeg-léeg ñu ne maqaayisul luxa foofu la ko noonu la ko xamale niki noonu ibnul athir Euh, ci téeram bii di an nihaaya moom it noonu la ko xamale mooy lépp luy nëbb di muur niki noonu arraxibul euh, asbahaani moom it noonu la ko xamale comme lépp loo xam ne day nëbb ak di muur dañ koy tuddee kufr léelée suuf sax ñu tuddee ko kufr euh, ci arab ci aslam ndax suuf dafa nëbb lu nekk ci biiram léelée géej sax dañ koy tuddee loolu ndax géej dafa nëbb li nga xam ne moom moo nekk ci biiram ku duggul si géej mënoo koo xam comme waa luxa ñoom nii lañ xamale lii nga xamante ni moom mooy moom mooy kufr bu ñëwee ci charia borom xam-xam yi xamale nañ ko ay xamale yu wuute waaye yëpp boo xoolee ci benn maana lay dellu ku ci mel ni ibnul qayim rahimahullah ci muxtasaru sawaiq nee na leydi kufre moom mooy weddi lépp loo xam ni yàlla ak yonente bi dañ koo indi mu nekk lu leer ak di weddi lenn ci li nga xam ne moom mooy wéetal yàlla lépp luy wéetal yàlla nga weddi ko loolu day nekk li nga xamante ni euh, moom mooy kufre ñu jëlee ci imaamu zuhri jëlee ci layth wala ñu jëlee ci layth mu ne kufr bu ñu waxee kufr moom mooy lépp loo xam ne day yàq imaan lépp lu nëbb imaan rek kufr la ndax boo xoolee cosaan bi ci loo moom mooy lépp lu nëbb comme loolu dañ koy tuddee kufr al cheikh as saadi rahimahullah mu ne kufr mooy nga weddi loo xam ni yàlla ak yonentaam ñoom ñoo ko indi loolu kufru la weddi li nga xam ne yàlla ak yonentaam moo ko indi loolu kufru la ibnu ci al mu ne nga weddi li nga xam ni moom mooy moomeelu yàlla borom bi subhaanahu wa taala ak ay jëfam ak weddi turam ak melokaanam ak di ko bokkaale ci ay jaamu ak weddi lii nga xam ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa indi loolu loolu kufru la wallahu aalam euh, ci ñaar la am na kufru boo xam ne euh, kufru akbar la bu mag am boo xam ne kufru asgar la euh, kufru bu mag bi day génne nit ki diine islaam kufru asgar nag bu ndaw bi du génne nit ki diine lislaam waaye def na bàkkaar bu mag bu dee ci kufru akbar bi kooku borom xoxam dañ koo xaaj ci juróom juróomi xaaj juróom yooyu ku ci tàbbi rek yow tàbbi nga ci kufru bu mag bi bokk na ci kufru takdib wal juxuud mooy kufru boo xam ne weddi la weddi yàlla la maanaam weddi lenn lu yàlla indi wala yonentaam moo tax eh, yàlla borom subhaanahu wa wax ni fa innahum laa yukadibuunak walakin alzalimina bi ayatillahi bi ayatillahi yajhaduun mu ne eh, ñii nga xamante ni ñoom ñooy eh, ñoom ñoo la wedd ci yéefar yi du yow la ñuy wedde waaye li nga xam ne mooy aaya yàlla yi kàddu yàlla yi moom la ñu ñaareel bi eh, bi nga xam ni day génne nit ki mooy kufru bi nga xam day génne diine lislaam kufru bu mag bi mooy kufru nifaaq kufru boo xam ne ab nifaaq la mooy nëbb imaan di feeñal euh, nëbb kéefër di feeñal imaan walla nëbb kéefër di feeñal islaam loolu kufru bu mag la moo tax borom subhana taala wax ni innal munafiqina fi darkil asfali minan naar munafiqina ñoom ñooy xooñu sawara ndax loolu kufru bu mag la mu waxaat mu ne wa minan naasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir wa ma hum bi muminin yuxaadiuuna allah am na ci nit ñi ñuy wax ni ñoom dañoo gëm yàlla gëm bi su penc waaye nag gëmuñu dañuy jéem a nax nit ñi wala di jéem a naan jéem a nax yàlla ak yu mel noonu comme loolu kufru euh, bu mag la am beneen kufru boo xamante ni mooy kufru rëy la rëy ak dum mooyu kufru rëy mooy rëy ba baña top topp li nga xam ne moom la yàlla indi moo tax yàlla wax ci iblis mu ne iblisa aba wastakbara wa kaana min alkafirin iblis dafa bañ reey reey lu, motax mu bok ci ñi nga xamanteni ñom ñoy ñooy yi ñettel bi mo moy kufru bo xamne kufru bu weddi la kufru euh, subhanallah moy weddi bo xamne weddi sikki sak la nit di sikki sak bo xam ay yalla yi est-ce worna wala hadisi est-ce worna wala wala di sikki sak sax ci alquran bi est-ce sax yalla ko wàcce wala yonente bi est que yàllaa ko yónni kooku ab kéefër la ku sikki sàkk ci ab kéefër la comme yii nii moom mooy li nga xamante ni moom mooy euh, anwaarul kufr loo xam ne borom xam-xam yi juñu nañ ko ku si mel ni ibnu manda ku si mel ni ibnu jarir ci tafsiram euh, ku ci mel ni euh, imam ahmad ci ay waxam ak yeneen i borom yi xam-xam ibnu ibnu daal ci yaatal ibnul qayim alaamu sunna manshura lil xakami xaakim al xakami leeral na ko bu baax a baax a baax naam kufru boo xam ne kufru asxar la kufru asxar mooy bu ndaw buñ ko waxee mooy boo xam ne du génne nit ki diine lislaam waaye nit bu ko defee def na bàkkaar bu mag a mag a mag a mag yooyu bari na ci ay misaal yu war a joxe nit ñi nag léeg dañuy jaawale kufru akbar ak kufru asxar léeg-léeg euh, sharia wala islaam wala xadis wala aaya dina ñëw wax benn mbir itlaaq kufru ñu jàpp ni bu mag la comme yonent sallallahu alayhi wasallam wax ni sibaabul muslim euh, sibaabul muslimi fusuuqun wa qitaalu kufr mu ne xeex ak euh, jullit kéefër la waaye nag loolu kéefër bu ndaw la loolu keefar euh, bu ndaw la léegi dina gën a leer bu ñu indee li nga xam ne moom mooy euh, condition yu ñuy takfiree nit euh, bokk na ci yooyu mooy nit ku àtte tamit lu dul charia fekk la mu fas mooy àtteb charia moom moo gën waaye nag xëy na maslaha àdduna ak pression tubaab bi tax mu àtte leen lu dul charia ko kufr askar la bàkkaar bu ndaw la def keefeer bu ndaw la àggul ci keefee bu mag génnewu ko ci diine lislaam lu mel ni athar bu mel ni jëlee na ko ci ibnu abbas donte am na wuute ci wëram ak wërul waaye nag yoon ñëw na ci yoon yu bari jàpp naa ne bu nekk mën a dëgëral euh, beneen ba am na foo xam ne nee na kufrun duuna kufr am na fu mu ne huwa bihi kufrun wala am na fu mu waxaatee ne huwa euh, hiya kabira kabira comme yooyu yëpp ay affaires yu war leen loolu bakaar bu mag la comme kufur asxar am na ñu koy wax ne mooy kufur ndi ama mooy weddi li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy ay xewal yi nga xam ne moom la la borom bi subhaanahu wa defal maanaam nga jël sabab bi ki nga xam ne moom la borom bi jaarale xewal bi nga maanaam euh, nga focaliser wu ci moom ba fàtte borom bi subhaanahu wa taala waaye nag am na ñu ne sax loolu day àgg ci kufur akbar والله أعلم المهم موي الكفر أصغر موي لو خمني أقول تي كفر أكبر بوك لك يي خمني موم لا نيو آه، موم والله أعلم والحمد لله آه، فام بن ريغل بو بروم خم خم دي جوخي ليس كل من وقع في البدعة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه nekkul képp ku tàbbi ci kéeféer kéeféer tàbbi na sa kaw loolu faa ñu bàyyi ko xel jox naa leen sànq misaal yonte bi salaa sallam nee na si baabul muslim fusuuqun wa qitaaluhu kufr xeex ak jullit maanaam ŋàññi jullit ab loolu ab ab ab fisq la mooy ab kàccoor wa qitaalu xeexam moom kufru kéefër la ko yonte bi salaa sallam itlaaq na foofu baatu kéefar waaye kufru boobu kéefar boobu nekkul kéefar bu mag buy génne nit ki diine lislaam waaye kéefar bu bu ndaw la kéefar bu ndaw la comme yooyu dafa bëri ay maanaam yonent salaa sallam nee na laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mumin wala yashrabu alxamr xiina eh, yashrabu huwa almumin mu ne eh, njaalookat bi du njaaloo jamono ba muy njaaloo fekk jul ku gëm la foofu ni ko déggee ci zaaxi bi tam nga ne ah comme yéefar la yonent bi salaa sallam nee jamono boobu mu njaalo gëmul loolu nekkul euh, mutlaqul imaan nekkul dafa dàq ci moom mbooleem ngëm yàlla waaye kamaalul imaan mooy iman bu mat la dàq ci moom maanaam amul iman bu mat jamono jooju jamono jooju amul iman bu mat waaye nekkul ni euh, euh, mutlaqul imaan dafa dàq ci moom bépp imaan loolu faaw ñu bàyyi ko xel comme foofu mun nga ne yonent bi da koo yéefarloo waaye déedéet loolu boo xoolee mafhumul muxaalafa bi kufru asxar la waaye du euh, du akbar lu mel ni euh, cheikhul islam yu taymi rahimahullah wax na ko euh, lu ci mel ni borom sontal wax bu mu ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika humul kaafiruun ku àttewul leneen lu dul àtteb yàlla kooku ab yéefar la tayib boo ko déggee noonu rek képp ku àtte lu dul àtte bi yàlla da nga naan yéefar fekkee noonu nga ko déggee fekk nag zahir bi du du noona maanaam ne salaa salaam itlaaq na kéefar borom subhaana taala na kéefar waaye nag du képp rek ku àttewul àtte bi yàlla ñu ne yéefar la parce que faa ñu xool waa ji la muy àtte lan la fas ndax fekkee dafa fas ni looloo gën àtte bi yàlla yéefar la lu borom xam-xam yi dëppoo su fekkee dafa fasti moo àtte yàlla ñoo tolloo yéefar la bu àttewee leneen lu dul àtte yàlla gëm ni moog àtte bi yàlla tolloo mu àtte bi ñoo tolloo yéefar la ndax àtte bi charia muy àtte bi yàlla tolloowul ak lenn bu gëmee ni tamit jamono jii ñu toll nii maanaam benn jamono ci jamono wala mu ne ah deux mille dix huit bii de man lii ma gis mooy deux mois yi ñu atte leneen lu atte yàlla moo gën ñu atte atte bi yàlla loolu ko gëmee yéefar la ndax atte bi yàlla moo gën ci jamono yëpp waaye su fekkee dafa atte woo leneen lu atte bi yàlla mu atte lay cité wala mu atte atte tubaab bi bàyyi fi atte bi yàlla fekk lu mu fas ci xolam mooy lu mu fas mooy atte bi yàlla moo gën te moom la ñu war a atte woo waaye maslaak tubaab bi pression yóbbee ko ba mu atte leneen comme kooku duñ ne yéefar la kooku mooy kufru asgar moo tax ibnu abbas ci riwaay nee na kabira hiya kabira maanaam loolu bàkkaar bu mag la comme nekkul lépp lu ñu itlaaq ci ne kufru la rek ku ko def rek da ngay génn ci diine lislaam waaye dañu xool dawaabiti léegi nag ci dawaabiti wala shuruut yi nga xam ni ci la ñuy takfiree nit yan condition la ñu teg pour ñu ne diw mii kat yéefar la condition yi yàlla maanaam ñu ne yéefar la mooy bu mag bi léegi yooyu euh, bu ci njëkk mooy kañ yi takfiir euh, ku tàbbi ci ab kéefër maanaam kéefër bu mag la tàbbi euh, moo xam dafa ñëw di wër ci ay bàmmeel loolu kéefër la la chak di jaamu ay bàmmeel ak yu mel noonu kooku balaa ñu koy takfiir faa ñu xool benn bu si njëkk est ce que majeur na est ce que majeur na an yakuna baaligan an yakuna baaligan est ce que majeur na bu fekkee majeur majeuragul kenn du ko takfiir kenn du ko yéefarloo maanaam bu defee lu tax ñu koy yéefarloo bokk na ci condition yi mooy mu nekk ku majeur su majeurul kenn du ko yéefarloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalima bi yëkkati nañ ko ci ñett bokk na ci ci xale ba ba muy ràññee ba muy majeur di ràññee comme euh, loolu mooy bu njëkk bi faaw mu majeur ku tàbbi ci kéefër balaa ji koy yéefarloo faaw mu majeur ñaareel bi mooy faaw mu nekk ku xelu bu fekkee dafa dof walla mu naan sàngara ba xel bi tàqalikoo ci moom mu def loo xam ne kéefër la mu def mbir moo xam ne dafa tàbbi ci kéefër exemple ku naan sàngara ba màndi exemple euh, mu saaga yàlla euh, wayasu billah euh, kooku kenn du ko yéefarloo parce que xel bi newu fa àndu ak xelam comme loolu faaw ñu bàyyi ko xel ñetteel bi il faut mu nekk ci tànneefam moom loolu mu def ba ñu war ko yéefarloo est-ce que tànneefam la exemple ñu saagaloo ko diine lislaam wala ñu saag ŋàññiloo ko yonente bi wala yàlla fekk dañ ko forcé ne ko defal loolu boo ko deful ñu ray la wala ñu ray sa papa ray sa yaay su boobaa kooku bu tàbbee ci loolu kenn du ko yéefarloo ndax dañ ko dañ ko euh, dañ ko forcé nekkul ci tànneefam moo tax borom subhana taala mu ne illaa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman moo tax borom bi mu ne lu dul ku ñu forcé fekk xolam daa fees dell ak ngëm yàlla su fekkee dañ ko forcé fekk moom xolam lu ci nekk mooy fonk yàlla ak yonentaam su boobaa kenn du ko kenn du ko yëfarloo loolu dal na euh, saxaabi bi di Ammar Ammar bañ ko jàppee jàpp ñaari waajuram tëral ñaari woy waajuram ci kanamam muy gis ñu leen di mbugal ñu ne tuddal suñu yàlla mu tudd ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee loolu ngaañu ko ci beneen bi mooy léegi lii mooy churuut yi léegi ñu wax ci mawaane mawaane yi bokk na ci ñu defal ko iqaamatul xujja iqaamatul xujja mooy lii di iqaamatul xujja laa bëgg a wax su fekkee moom la muy def kenn musul ñëw xamal ko ni lii lii ngay def kat ab kéefar la lii boo ko defee dañuy génn ci lislaam fekkee kenn mosu koo xamal moom mu ngi def rek mu ngi jaamu ay xërëm teel bi euh, mooy faañu ñoo ko xamal ko ni lii ngay def nii kat wala xërëm yi ngay jaamu wala leneen ak leneen walla lii boo ko waxee kat da lay génnee ci diine lislaam fekkee moom xamu ko woon dafa juddu nekk ci biya ci benn euh, environnement boo xam ne dafa xëy gis nit ñi di def loolu moo amul kenn ku ñëw wax ko ni lii dafa xaram lii da tàbbiloo ci kéefar su boobaa kenn du ko yéefar loolu gën a wër borom xam-xam yi wuute nag ndax iqaamatul xujja bi nga ko defal boo ñëwee la mu xamul woon ni lii ko ko def yéefar la boo ñëwee xamal ko ko ndax dañ ci chartante mu comprendre li nga wax wala boo ko waxee rek demal wala dafa war a comprendre li nga ko wax foofu la ñu wuute ñenn ñu ne noo faaw mu comprendre comprendre ñeneen ñu faaw mu comprendre li nga xam ne moo koy wax waaye nga wax ko rek ne ko lii da lay kéefarloo rek doyul mais faaw nga faaw mu leer ko ni moom li nga wax nii comprendre ko naam euh, beneen bi nga xam ni euh, maanaam nit bu tàbbee ci kéefër maanaam balaa ñu koy yéefarloo faaw charte boobu ñëw si mooy mu bañ a nekk ku tawil mu bañ a nekk ku tawil tawil mooy mbir mi def na ko waaye leneen la ci namm namm ci wedd yàlla leneen la ci namm مثلا Muaz Muaz dafa sujjootal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem benn dëkk gis ñooñu daal seen buur bi nuñ koy màggalee di ko sujjoo di leen suj sujjootal seen buur bi ba mu jógee foofu mu ñëw ci ne bi sallallahu alayhi wa sallam mu sujjootal ko yonente bi sallallahu alayhi wa looy def nii mu nekkat kat damaa dem ci benn dëkk kat gis ay nit ñuy sujjootal seen buur ma ne lii yow yaa ko gën a yellool yonente bi ne ko déedéet su fekkoon dinaa digal kenn mu sujootal kenn comme jigéen laay digal mu sujootal borom këram comme gis nga Muaz dafa taawil Muaz nam mu ci woon lii nga xam ne moom mooy bokkaale wala kefar waaye moom da koo taawil moom leneen la ci namoon te ñaareel bi mooy tamit Muaz yonent sallallahu alayhi da koo defal iqaamatul xujja ndax xamul woon moo tax yonent bi takfiiru ko yonent bi yëfarloo ko yonent bi daal di koy leeral comme day gis ñaari charte yi daje na ci Muaz dajewul woon ci Muaz mooy benn Muaz xamul woon loolu dafa xaram mu ren saa daf ko iqaamatul xujja laaj ko ba noppi ba mu ko laajee ba noppi yoon saa xamal ko ni lii kat dafa xaram lii kat ab keefar la ñaareel bi mooy Muaz daf cee nam moon leneen yoon tam dafa tawil mu ren salaa salaam takfiir ko comme yii nii ci gàtt ci gàttal mbokk yi mooy li nga xam ne mooy condition yu war a euh, yéefarloowee nit. Euh, ñi ko war a def nag lii di yéefarloo nit wala nit génn ci diine lislaam wala nangam nag léegi dafa bari ku def rek ñu ne la yéefar nga génn nga ci lislaam ba mu jaral ñenn ñi di poser ay bomb di taal di rey ñoo xam ne ay innocent lañ parce que xalaat boobu lañu am takfiir yi yuuni mooy xawaari ji parce que bakkaar bu mag ku ko def rek ñu ne la ku njaaloo yéefar nga ku naan sàngara yéefar nga ku dem boîte di fecc yéefar nga déedéet loolu ñàkk comprendre islaam la loolu ay bakkaar yu mag la ay bakkaar yu mag la waaye nag àggul ci di yéefarloon di ko génnee ci lislaam ba di daganal tuur deretam di posé ay bomb di rey ay nit di rey ay xale ñoo xam ne seen newu ci ay jigéen loolu nekkul lislaam comme boroom xam yu mag yi ñoom ñoo war a takfiir takfiir boroom xam-xam yu mag yi du sama jaar gi wala ay ñoo xam ne seeni àll soriwul ñoom ñooy taxaw di génnee ku leen neex ci diine di dugal ku leen neex ci diine comme xam naa fii la ñuy yem incha allah wallahu aalam lu jub ci wax ji euh, ci borom bi subhaanahu wa taala lu ci dëng ñu xam ne ci man mii doon wax la di gërëm mbokk yépp walaata yëpp wala takunanna minal mushrikin bu leen doon ay mushrikuun dañu tënk ci njàngale yàlla ak tam tënk ci li nga xam ne moom mooy tawxid barakallahu fikum